jërë ngeen jëf euh, mbokk yi seetaan Tektal TV ci kan bi mm. ñu nekk kii di na Diop di réparateur télévision nga xam ne day réparé doon ku sérieux nga xam tamit day dund national nationale waxuma équipe nationale yi léegi de mais jamonoy almaa ba almaa bi nunu Peter ti cer Diop Peter Sénégal ñun am ay xome équipe nationale lañ loolu yàgg na depuis ci année 98 yi jëm 2000 yi mm. Sénégal jaraloon ñu lu ne mm. waaw moo tax boo ñu ci laaj ñi daal dañ ci sawar di ci tontu loolu daal parce que suñu pasion la suñu suñ suñu mbëggeel la tamit waaw parce que Sénégal moom moom lañ ci doon moom la ñu sagoo hmm. waaw ba tax na maam ku ñu ci laaj daal dañu ci loolu daal hmm. waaw jamono jooju mooy jamono ñoom Pape Ñoxar faal mbay Baj si Ibrahima Teta Diané Assane Ndiaye ay xeet yooyu Salif Keita ay euh, Omar Traoré jamono boobu ñu gis ne boobu kooku moo taxaw ak Pape Malick Diop Assane Ndiaye dem si Assane Ndiaye daan na fi àlxaaraaji kooku moo taxawal mm-hmm. équipe nationale ba mu dëgër nii mais tey mm-hmm. dañuy gis ne ñi fi bal équipe nationale ñaar yi lu ci bëri dëkkuñu fi mm-hmm. tubaab yi ñuul lan daal miinuñu fi bu meexee bu méttee yëpp ñetti fan ñu dem bàyyi ñu fi léegi yow dafa mel ne yow sama li ma gis sa gis-gis. Hmm. ci football. Hmm. mooy li soxe ko fii nga bëgg ñu ko yóbbu kan ñu jaay dar. waaw waaw loolu moom. sëñ Cheikh maanaam yow ku la gis xam na yow. équipe nationale daf la jaraloon lu ne tamit. Hmm. bañ nañ ko ba buñ retourné ay 2006. jëm 2008 noonu. ba équipe bi yaa euh, euh, bokk nga ci ñu doon suuxat. maam pour mu jógaat. yaa ngi dégg kon yow Sénégal ñor na la. te na leen ñaanal tamit suñu borom kàttan na la dëgëral la. te maanaam li ngay euh, xeex yi nii. équipe nationale bi du sa intérêt euh, bopp. maanaam pour population Sénégal bi yëpp la. waaw léegi nag comme yow ni nga ko gëmee nii noonu la ko joueur yi war a sur le terrain. xam na lii kat affaire de dret la affaire de sang la maam mbokk jaayante la xare. waaw pour que lu toll ne drapeau bu ñu la jox la nga war cee def fulla ak fayda. war a indi war a indi physique war a indi technique war a indi qualité. mais wax dëgg yàlla. gars yi li ñu nii moom sélectionné woon jour nawetaan ni fii nii def ñoom moyen man amoon naa am naa yaqin ne maanaam bu ko nu ñu ko defee woon comme ni ko Pirès Sénégal defee woon en quatre-vingt-deux mille ca Ndeseriya ba dinañ am résultat bu positif mais gars yi wax dëgg yàlla tamit ñoom coono ñoom bu ñu bu ñu gisee seen club ni ñuy fubalee foofu jom bi ak physique ak ak maanaam pour la ba ñuy wanee foofu wax dëgg yàlla woon Afrique dafa am lu mu laaj te dañu dañoo dëgër ay ñoom Kenya ak yooyu voilà Afrique bi Afrique bi Afrique dafa am lu mu laaj mooy Afrique football dafa laaj doole dafa laaj xadar dafa laaj tamit maanaam tamit fulla ak fayda te ñoom fulla ak fayda waaw ak waaw te loolu nag gars yi loolu lañ hmm. ñoom li ñu fi wal wax dëgg yàlla nekkul lii mooy indi ko hmm. bu fekkee ko bi daal saay hmm. nañ jël complexe bi ko fële nit li ñuy def seen club bi ak fulla ak fayda bi ak jom bi ñu mooy lee mayo yaa ngi nekk ñu indi ko ñu loolu lañ gëm mais lan moo waral Thierno Diop fii Sénégal euh, gis nañ bal arrêté buñ ko amee équipe bi ni dajee sax duñ bu baax ndax lan suñ bal arrêté yi dañ koy dóori ci mbooy gi ba kun war a kii ñu gàññu coup franc du dugg corner 10 000 corner du ñu jëriñ dara. waaw penalty moom buñ bis bu ñu demee série làmbaay ñaaw. waaw xam nga sax maam la euh, am problème maam gars yi seen préparation euh, équipe nationale maam ni ñu koy defee man pour man a ah, sama xalaat bu gàtt. du noonu parce que dès le bas âge la ñu war a former ñi nga xam ñoo war a nekk les futurs professionnels ñi nga xam ñoo war a nekk les les futurs joueurs équipe nationale mais fii dañuy ñëw maam bëgg def ay collection. te man collection pour man du équipe daal pour man maanaam nga jël booy bu am 5 ans nga ni kii moo remplacé Sadio Mané fii ak 15 ans 20 ans nga ko jàngal tir coup franc tir penalty tir corner maam mi xarañ ci comme ñoom Chris ak ñoom Messi nga xamante ne ñoom bu ñu taxawee rek seen jëm bopp nga xam ne carrément ñii. foo bi voilà foo maam bit ci biir la mais ci biir maam bu ñu ñemee xool sax ndax concentration bañ ciy def ak fulla ak fayda bañ ciy def maanaam ñun Sénégal loolu la ñu war a réew mi mais du jaagar na ay collectionneur ay joueurs kee ma nga am euh, Liverpool kee ma nga Angleterre kee ma nga ñu collectionné non non. Hmm. parce que dinañ dinañ am joueur effectif mais doo am collectif. te football jeu jeu de collectif la. te di mel ne waa Cameroun bàyyi sa bopp yi ni mel amul nekk fii dafa laa amul fii kii ñàng avant ngay ñàngal jëw ci terrain bi mu jaral la lu ne daal bañ a nu nekk fi toilette ko xeesal ak ay leeral ak yooyu nekkuñ ci. waaw maanaam mooy comme lu la wax rek maanaam gars yi équipe maam dañ koy euh, maam dañoo foog ne maanaam lu diis la maam lu astafurlah lu oyof la te alors que dafa diis gan équipe nationale boo xasee ba nga man damay signé ñëw football ji équipe nationale maam boog daa ay caractère boo war a wañe wane ak tamit xar kanam boo war a war a jëfee ci terrain bi maanaam mi na lii ni kat du ay foo du ay caaxaan xare ba la da ngay football ngir sa rew da ngaa bëgg da ngaa war a bëggal sa réew maanaam nit ñi kontaan loolu dèjà waxuma dara sax mais li fi jotoon xew nii sax ak maanaam ak euh, yenn euh, problème sax maanaam nga fàttaloo ko nit ñi rek maanaam loolu rek maanaam war war na mën a maanaam gars yi euh, reyante ci terrain maanaam di di def comme nu Cameroun def wala Nigéria yi def mais Sénégal ñun fu ñu toll nii ak joueurs ñu am yëpp mais du yoon ba léegi amaguñ coupe mais loolu du yoon te Cheikh am itam lamb war ngaa toog maanaam jéem dirigeant yi ñu jéem a xool la mooy problème Sénégal ñu a ñu jéem a résoudre problème boobu tamit parce tamit ñun mënuñu nekk naan ñun ñoo am meilleur gardien Afrique meilleur joueur Afrique chaque jour ñun ñooy maam jeunes yi gën baax affaire bi ñoo ko am te mënu ñoo am dara ci football waaw résultat lañ soxla quoi wax dëgg yàlla daal ma sañoon daal seex loolu nga dox ci ay jéego gars yi xam ne équipe nationale du ndaw du caaxaan gars yi jël ko au sérieux askan bi kontaan maam ñu libéré askan ñu indi coupe coupe lañ soxla mais lan nga wax ci attaque bi nga xam problème mu dugal lan am dugal dugal waaw attaque bi maam pour man daal gars yi ñoo parewul rek parce que lu toll ne campagne africaine boo fay dem war nga mën a jouer donte ñaari euh, donte donte ñaari match amical yu mag donte da ngay jël ay Allemagne wala ay Italie mais pourquoi pas Sénégal ñoom mënu jël équipe yu mag yi di fa la ñoom di ko gagné foofu expérience mais boo bëggee mais boo bëggee xañ da ngay euh, xam-xam bu ko defee ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay football ak moom bu ko defee maanaam lu ngay manqué nga koy ci kooku mais Sénégal ñoom côté yooyu lañ war nañ fa insister dirigeants yi di jël équipe yu mag yi di football ak ñoom ay match amiko bu ko defee maam erreur yi nga xamante ne maam moom lañ euh, moom lañ ñi koy jéem a jàng foofu noonu parce que li yëpp maanaam dañuy war ne maanaam manque de préparation la rek waaw te manque préparation baaxul ci commission loolu noonu nag day indi faay te faay yooyu noonu mooy gars yi euh, instant bii sax mënuñu ko am Aliou Cissé moom loo koy wax entraîneur bi waaw Aliou Cissé daal pour man daal ah sama xalaat bu gàtt daal dafa war a teg nonga ndombal tànkam rek parce que tamit maanaam ah, ci jamono yii ah, a Cheikh yow si lu man dalul xel tamit

mi maam mi wane football mi wane football bu rafet bu ko defee même bu ñu gagné sax wala bu ñu dugalul sax xool Sénégal yi mën a seet daal mais tamit yow boobu léegi gisu goo jeu gisu goo benn construction gisu goo benn ak collectif mais nag ñun wax dëgg yàlla ñun ak effectif bu ñu mel ni fu Sénégal footballee adduna bi war a war a dafa dañoo war a kontaan waxuma la Sénégal mais adduna bi ñoom ñoo war a kontaan parce que ay parce que wuñ ko waaw man daal pour man jom bi ak entraîneur daal ak maanaam joueur bi mu wéyoo les moyens pour man moo des daal waaw yow daal Géant loolu bàyyi naa ko sa loxo yow daal mhm. gars yi tool ak ñoom wax la ak ñoom ñuy fas jom mhm. allusion tamit maam xool bopp xoolaat boppam tamit mhm. équipe nationale gagné Sénégal am jàmm waaw vraiment kontaan nañ daal léegi lan ngay dànkaafu comme yoon bi yàlla def na ne bii fin temps mooy suñ problème penalty mooy suñ problème bal arrêté mooy suñ problème euh, bii njëkk lu bon xanaa bu ñu def lu baax leneen pour leneen bañ ko yàq quoi bii fin temps yi lan lañ war a moytu war a maanaam chaque jour ci maanaam euh, arbitre yi hmm. wala di basé wu chaque jour dernière journée naan bu kii dooree wala kay mas ñu nag yooyu lañu lañ war ak tamit war a football demi final di final voilà di war a ñun comme Allemagne yi lu ñuy def ñun loolu lañu ñu war a def jël mantaal boobu def ko mooy hmm. équipe bu ci nekk ñu bañ leen a xeeb hmm. match bu ci nekk bu fekkee na ngaa war a dugal huit bi nga dugal huit bi bu fekkee da ngaa war dugal sept nga dugal sept bi bañ a am gomme mais Sénégal ñun dañoo gaaw a doylu dañu da ngay mën a équipe sax nga gis ne duñ ñu fubal loolu nag maam ci loolu nag suñ ñoo ko jikkoo te bi gën a wóor mooy attaque daal voilà merci défendre bi gën a dóor moom mooy attaque gars nañ nañ nañ góorgóorlu saa football bi maam tamit moytu def jom. boot seen loxo yi ci ginnaaw. voilà boot seen loxo yi ci ginnaaw. maam compte sookan. merci voilà. incha allah kon jërëjëf Baye Mansour Diop topp ba Euh, réparateur télévision ci Derklé wax na wax yu am solo baax da ngay wax loo wax ci gëm na solo Mohamed Khady abi waxul euh, permo permo kaay permo kaay 30 secondes wax ci kon euh, ñu xoolaat kenn keneen ci équipe nationale lan lu mën a jariñ ay njëriñ rek ñu xool keneen mu ñëw jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan Tektal TV ci Coupe d'Afrique bi CAN bi ak Sénégal ku ci mën a am ay conseil yooyu wax nga wax ku ci am looy dànkaafu nga dànkaafu ku ci am looy yedd nga yedd ko pour nun mën a def ba coupe bi ñëw ci jàmm ak salaam te du ñu fi wax coupe bu corona ak dem ba final ñoo diw dafa corona ak yooyu yëpp ak Cameroun ak yëpp daal euh, sëñ Birane Dieng lan nga nu mën a wax ci équipe national li waral chaque jour ñu yor équipe bu baax te mënu guñ jël coupe ba léegi. waaw euh, asalaamaaleykum ñu ngi ziar ñëpp di baalu wax ñëpp di rafetlu question bi. ñaan yàlla d'abord ñun comme en tant que sénégalais ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam yàlla defal ñu jàmm ci li ñu nekk nii waaw parce que actuellement nii affaire bi moom dafa xaw a euh, doy tuuti. dafa xaw a jafe tuuti parce que euh, ci sama gis-gis affaire bi jaaragul yoon. jaaragul yoon jaaragul yoon euh, parce que équipe bi li muy fubal actuellement nii daal du lu ñu xaar ci équipe bi. Mm. sur le plan tactique technique lépp dara surtout nag envie bi ak détermination bi. Mm. man pour man foofu laa teg affaire bi. Mm. mooy góorgóorlu wu ñu defaguñu li nga xam ne par exemple moom la ñu yaakaat ñoom. surtout ci boo xam ne. ñu ngi wax ne moom mooy euh, première première équipe africaine et puis favori mm. war na mun a wone yeneen yeneen yeneen yeneen ah, waaw waaw pour mën a vraiment pour mën a bégal nit ñi nit ñi bu ñuy ñàkk ñu ñàkk ci loolu daal maanaam man loolu laa gis ne mais amul envie amul détermination loolu envie boobu manqué li manqué yow pour yow ñii football la wala entraîneur bi la wala dirigeant waaw ñii football ci lañ bokk mais li ci ëpp entraîneur bi la mm. parce que entraîneur bi moom moo andi équipe bi moom mooy defar donc li muy teg dafa war a leer ci bopp xale yi te dama yaakaar ne xëy na li muy def ne leeragul ci bopp xale yi war naa juróom benn at nga nekk xale yi ñuy liggéey te tey ñi ñëw ci eh, kii bu mel ni Coupe d'Afrique te mënuloo andi tactique wala système de jeu boo xam ne ñun ñoo ko moomul suñu bopp loolu dafa xaw a doy waar donc entraîneur bi am na ci wàll xale yi nag comme li may wax ñoom aussi war nañ mën a góorgóorlu parce que des professionnels mm. ñoo xam ne par exemple ñu ngi ci équipe yu di football bu demee noonu aussi ku ci nekk war ngaa jël sa sa sa seen nataayu bopp ñefe ko. def li nga xam ne par exemple moom moom nga mënal sa bopp yow nga génne ko yone ko. mu détermination envie ñu xam ne au moins bëgg ngeen la ca des nag entraîneur bi moom moo ko waroon a mën a def ci ci ñoom. sëñ Birane Dieng lan ngay wax ci Coupe d'Afrique est-ce que amul wuute ak euh, ay Coupe du Monde ay Ligue des Champions ay championnat yu mag yeeg yooyu parce que gis na ni ñi gën a toj fële même bu ñëwee Coupe d'Afrique danañ am problème mais ñi miin fii amuñu problème mu nekk Afrique. ñi fi nekkul daal ñu ñi fi fubalul te euh, ñooñu ñooñu ñooy yëg mititu Afrique daal xam ma dafa am leneen lu mu laaj xam ma lan la du may espace. xam nga loolu yëpp tàngoor gi ci la bokk. xam nga ko lu nekk rek miineen la. xëy na problème mu miineen la problème mu xëy na loolu mooy des loolu nag dafa am ñoo xam ne ñoo moom liggéey boobu. dañ ko war a def. am na ñu nekk ci ginnaaw équipe yi loo xam ne nit bu ñëwee war nga mun ko intégrer ci équipe bi. ba mu war cee mun a ne problème yooyu doo ko am. loolu loolu c'est un travail psychologique boo xam ne gars yi ñoo ko war a def. xëy na loolu mooy manqué équipe bi quoi mooy manqué joueur yooyu mais sinon ñoom ñëpp c'est des patriotes man jàpp naa ne ku dem ba bàyyi li ngay beneen yeneen équipe yi dañ fa ñëw ba fii foog naa ne war nga mën a am patriotisme boobu mais problème mooy nit ñi leen la li leen di jàppale moo des hmm. waaw intégration bi daal man pour man moo des quoi comme ñun yóbbu ñëpp baax na kan nga jàpp ne ko teg dañ cee juum bu ñu ko tegoon fee wala ñu teg ko ci banc bi dugal keneen euh, pour ngëneel pour le mu kii problème mu comprendre bi maanaam comme exemple léeg-léeg nga ne Bamba Dieng war na football Diao Baldé Keita war na toog wala Sadio Mané war nay dóor wala wala espace bi mu football Liverpool pourquoi mu def lii joxe ay idée Koyaté fi mu nekk baax na euh, pap Abdou Cissé lii diw baax na wala xeet yooyu quoi. waaw xam nga loolu yëpp problème complémentarité la loolu football moom foog naa ne c'est un système mis en place boo xam ne par exemple yaa xam ban système ngay teg par rapport ak joueurs yi. Hmm. loolu man du ma ci mën a sori parce que entraîneur bi moom moo ma gën a xam joueurs yi. normalement bu andee war na xam système bi yan joueurs ñoo ci adapté wu. pour ñu mun a jouer système boobu. pour man loolu la war a mën a demee mais ñun en tant que supporter. mu ñu ñun li ñuy réalité yi am ci entraînement ba ñun xamuñu ko. donc mënuñoo yeewu ne rek na équipe bi. nañ teg on joueurs yi wala nit mais xam nañ ne par exemple y a de très bons joueurs yoo xam ne par exemple boo leen andee war nañ la mën a andi dara. Mm-hmm. waaw comme booy bi wax Bamba Dieng il est très bon. Mm-hmm. en attaque y avait y a surtout y a a a l'autre là bi nag ñoom ñoo am manque de de de de surtout numéro 9 yi. Mm. waaw mais loolu aussi dafa am lu koy andi il faut bali am fu mu war a jaar pour ñëw ci ñoom pour bal bi ñu mën a mën dugal mais loolu mu amul aussi dafay jafe ci ñoom. Mm. xam nga dafa am façon neuf yoo xam ne bokkuñu am na neuf boo am na neuf yoo xam ne dañu génn def une deux ñëw génn. léegi nag loolu yëpp système la mooy li ma la wax entraîneur bi moom mooy xool ñi nga xam ne ñoo ànd. bu ñu waree mën a ànd ñëw mën a def benn un bon match war nañ ko mën a def. fii lan nga ciy wax dama gis ci problème mu Sénégal lu ci bari bal arrêté ñun buñ ko amee sax ñi ni dajal dina xam lii du danger quoi parce que mënuñu ko exploiter. te léegi ku nu war a daaneel daaneel ñu ko war a def fët def fët ndax a liggéeyaat. xam nga loolu war nañ ci liggéeyaat parce que loolu suñu forloon bu yoo xam ne ak ay tireur mais équipe bi amatul loolu boo xoolee amoon nañu ay joueurs yoo xam ne par exemple balle arrêté amuñ su am problème boobu mais léegi dañu am problème boobu am na ci ay joueurs yoo xam ne par exemple boo xoolee léegi bu ñu am ay kii ay jaaw Baldé Keita ñoo koy dóor wala yenn joueurs yi comme xaw ma Bouna bu njëkk ba dañu amoon ay joueurs comme joueur bi nekkoon Espagne milieu terrain boobu Pape Kouli Diop ñooñu c'est ay Henri Saivet mais amuñu yaaru joueurs yooyu mm. mais parce que boo xoolee ñun ay xoolal xoolal défense kii bi xoolal genre joueurs yi ñu ay joueurs yu mag la ñu am yu njool normalement bal arrêté yëpp war na nekk ay ay ay bal de ay danger ci ñun mais loolu la ñu manqué amuñu vraiment un joueur boo xam ne mën nañu defal loolu sëñ Biran Dieng sëñ Biran Dieng ñu ngi lay sant di la gërëm nga ñaanal équipe nationale merci bien jërëjëf ñu ngi jaar ñëpp ñu leen baalu ak merci di ñaan yàlla yàlla defal ñu ndam waaw merci bien merci bien jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi kon équipe nationale la nekk ci mbiram di ñaan yàlla rek lu mën di xew ñu am ndam ak jàmm ak salaam euh, ku mën a conseil lu mën a jëriñ équipe bi rek def ku mën ñaan nga ñaan mais ñaan nag mooy mujj jëf bi mooy jiitu toog kun dajeel nga naan dañ koy dóor ñii fubal ci terrain bi ñoom ñoo war a wax loolu et puis bàyyi di fubal demi-finale au lieu nga tal demi-finale bi ngay wax waxu ka ngay dajeek finale yooyu nekk fi match par match bin teew nañ ko lijjanti première mi bi teew nañ ko lijjanti bu jeexee ñu soog a tal deuxième mi-temps boobu bu jeexee ñu soog a tal temps additionnel a nekk fii di tal leneen mooy loolu kon équipe nationale jot na ñu jël coupe ndax waxkat yi sax ñu bari ñu wax fi mu nekk nii ndax ñàkk yaakaar ci équipe nationale kon góorgóorlu war na jaajëf